ñoo door ak sa mag. waaw incha allah sama mag laa ñëw di supporter si nii. ñu des ay fan yu néew ba doon conseil Tapha Tine mu bëri lan nga koy conseil mu bëree ko. waaw Tapha li ma koy conseil bëriwul Tapha boor bi tegee loxoom fu booy ñaan rek na ko faa mën a fekk waaw jëlee ko fa. Boy Niang mbër bi mu nekk ak teg tactique bu am bi am yaakaar nga ne daw fekk ko war dina jeexal combat bi. waay bañ a Tapha Tine amul lu muy war a si bom euh, si mooy si Boy Niang lekk rek la ko war a def. billaay lekk rek la ko war a def. bi amul négocier Tapha na wàcc ci kiwisam toog fu mu taxaw mu fekk ko fa jëlee ko fa billaahi. Tafatine bëre Tafatine man lépp non Tafatine daa complet Tafatine leneen ko manqué woon muy galaaj te am na ko instant yii. ma gis ba ah, changement am Bawol yëpp topp ci ginnaaw Tafatine mu am changement mystiquement lan moo waral loolu. waaw loolu noonu combat bii moo ko jar moo tax ñun ñëpp bëgg koo dooleel mooy loolu fu waaye xam na dugg na fa. booy ñaar mystique la mën a jàpp leen wala. non booy ñaar du question loolu booy ñaar moom daal li ma koy waxal na ñëw daanu dem ñibbi ñun moom lu si moom billaay. li ngay conseillé supporters yi. li ñu ko ñun ñun xam nga ne ay bawol bawol la ñun duñu yàq làmb ñun moom boo nu gisee nga yàq waaw. Mor Kankang la foo toll ci combat yi. combat bi sama grand combat taxaw na man ak Dabdaan fii Iba Mar. Dabdaan men waaw man ak Dabdaan bayti. waaw jommal la xalaat amul problème loo dab rek daan. Eh, ayca nee na ko dab rek daan. <laughs> waaw le 19 ndam rek waaw dañuy ñaan yàlla yàlla suturaal ñu Taphatine kenn du ko conseillé kenn du gënul xam li ko war ci bis bi liggéey na li mu war liggéey def na lépp lu war a def fi ne dara desul lu dul ñaan yàlla rek yàlla may ko ndam daal di lancer message aussi tamit Dakar Plateau bi Médina bi Fass Colobane Gueule Tapée na ñëpp génn waa Bawol na ñëpp génn jàppale ko ci bisam bii mu jëm diggante bi nga xam ne ji yéen en boo xoolee amateur yi nekk ci làmb ay bool-bool lañ ñoo si ëpp te amateur mooy sañse ba rafet ñëw stade dagg biyam bu seer toog bu làmb jeexee mu ñibbi làmb rek moo ñor kon ku xam waa bool xam waa Dakar Plateau xam ne ñoom non à la violence demee te loolu la ñuy ñaan yàlla aussi tamit ñu bëri ko si jàmm yàlla may ñu dem si jàmm benn kenn bañ xoosu waaw. mais est di bëri ak combat bi ak combat yi ngeen bëri woon ak est-ce que amul benn différence. waaw bi combat boo jugee bi ngay demaat day am différence combat yi yëpp yemuñu adversaire boo jugee rek ak beneen bi ngay demaa du bokkul mais loo ci mën di dégg daal mooy Tapha Tine waaj na lépp lu mu war a waaj waaw combat bi daal pare na si lépp lu mu war a pare. leneen desitu fi loolu ñaanal ko yàlla rek mu suturaal ko may ko ndam. lan ngeen ko digal ci combat bi xam ngeen ki muy xam nañ ki muy dajal bu Tapha Tine tollatul fu ñu koy conseillé ci làmb di ko wax lii nga a def wala lii nga a def moom xam na li ko war ci bis bi lenn lañ koy ñaanal mooy ndam en tout cas daal lépp li mu war a def moom lépp li mu waroon def ci bis bi def na ko dañuy lancer message rek yi génn dooleel ko yokk ko doole yàlla suturaal ko may ko ndam. mais Double Moteur fu mu ne nii yow fan nga toll yow sa bopp. waaw ñun ñi ngi si li ñu war a nekk rek ñu ngi si ne entraînement dégg suñu saf rek ku ñu làmb boole rek ñu bëri incha allah. waaw mbëri yi kaw rek waaw mbëri yi ci kaw rek mooy comme ni ma ko waxee chaque jour rek